Nous, femmes leaders, issues de diverses corporations, agents de santé, vendeuses à la sauvette, enseignantes, étudiantes, femmes au foyer, cadres, chômeuses, avons décidé de faire bloc pour jouer pleinement le rôle qui est le nôtre dans ces consultations électorales. Par conséquent, nous avons mis sur pied la clé de Thiès, convergence des leaders femmes de Thiès, pour trois raisons. Exiger la prise en charge réelle des préoccupations des femmes dans les programmes de gouvernance locale. Veiller à la défense des intérêts de Thiès par une attitude d'alerte socio-constructive et avant-gardiste. Identifier le meilleur profil et soutenir vraiment et sans embâge celui qui nous paraît le plus apte à conduire les destinées de notre chère ville pour un avenir plus radieux. critères bien définis, sélectifs et rigoureux analysés, notre choix s'est porté sur M. Mauda Malik Mbaye. Responsable, responsable de la paire, par ailleurs DG d'Alanamo, pour être notre candidat au poste de premier magistrat de la ville de Thiès. Mais si vous la table, vous savez que nous avons pris décision. ñoom ñëpp ànd nit du kenn Maodo rek la ñuy jiital fii ay femme de valeur rek ñoo nekk ci biir saal bi kenn mënul lim kenn xol yëpp sedd tey Maodo xolam sedd na ñun ñuy toog suñu ay xol sedd nañu. fii nag façon jigéen bu nekk mu ngi ci biir saal bi Maodo yëgul tinul nee naa ko ba tàyyi mbay ñëw mun ma fenn laa dul ñëw te du fi ñëw te duñ ko gis ndax yéen jël décision bopp seen décision bopp ni da ngeen di jël Maodo porté ko Maodo nag. di répété lu mu def sax dafa naa yàq wax la wax ci benn rek la Maodo rek la Maodo rek la macha allah mbay lu ne def na ko. ñun dooruñu imaam yi ñoo njëkk a jug def li ñuy def dikk nii du kenn ndax ni ko euh, lime léegi Limé léegi Ousseynou nee na Maodo lu nekk loxo mi ngi ci biir te dëgg la Maodo 2009 ba léegi Maodo ngi def ci dëkk bi. waa léegi nag kuy wàll yaan boobu sa dëkk dafa tëggul ñu nag. yegg si nañ te taxaw nañ ñun jigéen ñii nga xamante ni caabi lañ tuddee seen bopp suñu bopp ñun ñoo àndandoo ñun ñëpp fas yéene jël caabi ji jox ko Maodo Malick Mbaye nii du kenn Maodo rek la te incha allahu rabbi au soir du 23 janvier 2022 bugg nañ ñun ñëpp ñu gunge Maodo teg ko si maire bi loolu lañ ñuy ñaan yàlla te yàlla na ko yàlla yeggale ma ne ko am fas fas gattax di la togg boo amee naaru góor kenn waxatu ko Maodo jigéen ñi rekk la bëgg Maodo bugul kenn ku dul jigéen ñi goor góor ñi la bëgg Maodo jeunes yi la bëgg Maodo bugul lu ties kon nak ñun ñëpp nañ andando ni ñu ko défé ngan la way nañu takku bu kenn dellu gannaaw nañ leen takku andando jàppale Maodo and ak Maodo jox ko maire bi ndax Maodo defar dëkk bi rek moko taxa juk au soir du 23 janvier mu japp si ñu jël ko jox ko maire ties loolu président de la république Macky Sall loolu lañ koy ñaan té loolu lañ bëgg mu defal ko ci biir ties ñun jigéen ñi euh, dañu créer une convergence muy clé convergence bi moy femme convergence des leaders femmes de Thiès ñi ay jigen ño xamantene ñun xaru ñu dara ci politique. ku ci nek yaa ngi ci sa ruq di liggéey sa liggéey. Maodo malik Mbaye ku ci nek amone yéene jàppale ko ndax lan parce que mawdo malik Mbaye dañu bokk ak mom nak Thiès. mu nekk doomu Thiès nag bëgg Thiès lool ñu gis aussi action yi muy def ci biir dëkk bi mu am ñu ci bari ñoo xamante ne séq na ko ñoom personnellement fii ci saal bi bu ñu ko doon compter duñ fi jóge ku mu ko séqalul personnellement yaa ngi toog di gis mu koy def ci biir dëkk bi nga amoon yéene jàppale ko Maodo Malick mbay moo ngi ci social bi diggante dëkkandoo ak dëkkandoo daf ciy dox lu bari Maodo Malick mi ngi ci hôpitaux yi Maodo Malick mi ngi ci église yi Maodo Malick mi ngi ci jàkka yi Maodo Malick mi ngi ci sport bi pas plus tard que année bii rek ci suñu final ONCAV bi moom la ñu ko parrainé parce que moom moo waral sax nawetaan yi ren am Thiès kon kii je pense que neex na jàppale te neex na teg ci maire bi ndax mi ngi joué rôle lu maire te nekkagul meex kon kii suñu xel day dal ci moom torop Donk, kom nou man kon wakay wan rek, nyoun kle, nyoun nek konverjans bo khamen tene, denyou libre, dareten kou nyou. Ken nou wou nyou, ken nou feyou nyou, ken nou propagandou nyou. Kouti nek ya djougel sa bopou, nyou el sa bopou, nyou bokoube niye nebi, men nyou kom si denyou gise. Bokoube niye nebi, rek moui tek mawdo malik ti vil de kyes. Prezident Matisal solonelman nyou koy wou, moom mi nga xamante ne mooy chef de la grande mouvance présidentielle ñi ngi koy ñaan mu jàppale ñu ci suñu choix bii di Maodo Malick mbay